ngeen jot suñu leen di ngi leen di nuyu di leen siyaara di nuyu kilifa yëpp nga xam ne seq liggéey bi yëpp tàmbale ci kilifa yi nga xam ne ñoo jiitu ak ñi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi yëpp noo ngi leen di nuyu di leen siyaara ci weeru màggu tedd bi ñaan yàlla suñu borom suñu kàddu fekkee ci jàmm. Euh, ginnaaw loolu di feeñee suñu mbégte rek di leen wax ne liggéey bi nga xam ne mbokk yi yónnee woon nañ ko fi ànd nañ léegi ba yóbbu ko teg ko ci loxob sëriñ bi yëkkati nañ ko jox addiya ji ne ko lii nag soppee ko ndax fi jamono ji toll tax ba siyaar bi defoon daaw mënuñu koo def waaye bi ñuy siyaare si ñu àndaale seen addiya mu jëm si ci yow xamal ko it ne ko ca Porokhane soxna jaare yi jël nañ fa ba dagg fa ay rosi ba jox nañ ñu ko mu sant na la ñaan bu baax la wax ne yàlla na yàlla sëñ bi gën a ci boppam noo ngi leen di gërëm bu baax lii rek mooy liggéey bi mooy solo si mooy ànd ngi sëñ Tuubaa nun ñii di ànd ak yéen ngeen di ànd ak nun ni ngeen ñu jàppee ngir sëriñ bi xam nañu ko loolu lañu jàpp ci yéen it ngir jëmmi sëriñ Tuubaa waaye dama leen waxoon rek du duñu leen laaj seen alal ngir suñ jëmm duñu leen laaj suñ alal ngir suñu yitte nan ànd liggéeyal Serigne Touba rek lañ leen loo xam ne mën nañ koo defal suñu bopp it fas yéene wuñ koo def te ànduñu ko yéen ndax dañuy bëgg waxtu wu nekk lenu lenu sëriñ bi fayee nu bokk ndax góor yu set wicc góor yu sel góor yu baax borom yi yitte borom yi pas-pas borom yi pëseef bu ñu àndandoo ci ab béréb sopp jëmm te Serigne Touba rek tax kooka moom it bu goree lu mu am da leen koy delloo looloo tax fu sama làmmiñ tudd ci bërëb rek dama koy dama fay bëgg tudd seeni tur ngir Serigne bi yëg loola boole nu ca lépp lu mu koy fayee kon nag nañ gën a jaajuwaat gën a laxasuwaat yàlla moom Sëriñ Tuubaa doolee taxaw sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax a baax a baax a baax a baax yéen ñëpp nag ndax mënunoo tudd di lim ay tur comme niñ ko baaxoo defee waaye kenn ku nekk xam na liggéey bi am nay jëwriñ jëwriñ yi jiite liggéey bi xam ngeen ko yéen ñun bokkal groupe bi ñun nit xam nañ ko maa ngi jël liggéey nuyoo bi ak ziar bi teg ko ci seeni seeni loxo ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax di leen sant di leen gërëm bu baax di yàlla sunu boroom lépp loo xam ne suñu borom defal na nañu ko ci yàlla nañu ko ci bokk tey loola mooy am ndax tey ji yaakaar naa mboolem dërëm bu waaye denc ci gaalam dërëm bi tey moo gën a neex mooy bi la wóor na teg nga ko ci loxoy Serigne Touba dana yokk dana barkeel te dana la defal loo mënalul sa bopp kon nag kenn ku ci nekk ci mbooloo mi ne yëg ne moom tey liggéeyal na Serigne bi ndax wóor na ko ne ab dërëmam tege na ci loxob Serigne Touba loola nag moo gën a lew li nga denc moo gën a yaakaar.